fi nekk yëpp ci insécurité kenn mënu ko wax surtout ñun ñi nga xamante ne 5 heures du matin yu jóg da ngay jóg bëgg a xëy doo mën a xëy. grandes artères de la commune afin de faciliter la tâche aux forces de l'ordre